Abdoulaye que Guy Marius Sagna mos na liggéey Prodac ba ay milliards est que Guy Marius Sagna mos na liggéey domaine ba ay milliards est que Guy Marius Sagna mos na liggéey service de transport de Louga ba def am na kër bu ñu jëndee xaalis si trop que kii Marius Sagna mos na am quota engrais mbaa quota semence est que kii Marius Sagna mos na def foo bie waaw kii Marius Sagna lan moo kii Marius Sagna xam nga lan moo kii Marius Sagna bokkul ci association des prédateurs de la République l'association des prédateurs de la République Guy Marius Sagna lan moo ko bàyyi kaso Guy Marius Sagna ñeent ñeenti délit la def ñeent premier délit Guy Marius Sagna dafa bëgg réewam deuxième délit Guy Marius Sagna dafa bëgg askanam troisième délit Guy Marius Sagna dafa bëgg Afrique bëgg le ñaan ci benn ñooñu dem di leen ñu kon nag mbir mi la lutte sera longue peut-être mais la victoire nous l'aurons parce qu'on ne peut pas vaincre un peuple un peuple décidé je vous remercie. merci beaucoup. merci beaucoup. jërëjëf papa jërëjëf. ñu ne lundi lundi bu jotee altine bii di ñëw képp ku yor oto wala nga yor scooter. loo mënti wax te mën a mbiib boo leen yeewoo lundi ñi amul oto ak ñi nga xamante ne amuñu moto a partir de 17h30 nañu jënd ay mbiib mbiib bu 17 la libération de Guy Marius Sagna ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam